Ndeysaan Ndeysaan Père Ibra Mbaye Ndeysaan Père Ibra looy wax Martin nii ancien lutteur doon entraîneur doon ménager xool ko ni mu waafee du bis bee ko dépassé mais mu waru ko dépassé ki bëri na ma bàyyi bëri ko dépassé ay xale ñooy fo rek Ndeysaan xeex nañ daw nañ jël ko jàppante Ndeysaan jël nañ jàppante jàppante nañ ñoom ñaar. waa ji daam seen na sàmm tànkam yi. daam seen na sàmm tànkam yi boo bëree ndaama da ngay wàcc ba tolloo. daam seen bëgg na daam seen daan na. daam seen ndaan di faal. daam seen da koo takk biij ko doo ko takk wëndeeloog moom. ndeysaan daam seen. daam seen daan ndaan di faal. seen daan na. ci biir bëre la ko daanee. oh làmb gi noonu. kon dinañ ko jooy kàggu jëloon lii kàggu jëloon xale yi ñoo ànd ak Dame xale yaa ngi noonu Dame am na ndam